dañuy ñëw euh, pour euh, next population bi nga xamni dañ leen bëgg lu lan te ci maire le maire de Saint-Louis ñëw and ak gouverneur bi and préfet avec les forces de sécurité la police. Mmh ñu ñëw quadriller zone bi yëpp donc toute la zone est quadrillée avec le catapillard commence commencé di toj kër yi nga xam ni tabax nañ ko ba pare te loolu dañ koy def defuñu benn sommation interpellative temps yële ñëwoon nañ fi di def ay enquête di déglu yenn nit ñi mais dañu yeewu suba rek ñëw si ay bulldozer commencé toj loolu nag lan lay wane mooy ñàkk yërmande bi nga xam ñi nga xamni ni ñom ñoom ñoo amee pouvoir ak ñi nga xamni ni ñoo amee destiné Ndar euh, euh, amuñu ko ci askan wi ci askanu Ndar da fay wone itam ni dañu am administration bo xamni au lieu que mu toppatoo citoyens yi ñu essayer protéger len dañuy def li ñu wax répression c'est-à-dire lepp luñu def rek pour note len ñom loolu la def donc jaay doolé lañuy ñuy fi xam ngeen ni Ndar légui dafa nek une ville bu stratégique ñu ngi wax pétrole gaz donc ñom am nañu agenda caché yo xamni mom lañu nar certainement si site bi nan ngay togué di xolé ana cadastre bi ana urbanisme ma nga xam ay nit ñoo xamni depuis plus de dix ans ñu ngi tabax fi nga xamni c'est un village traditionnel village bu traditionnel la de. Nous avons 150 ans donc récemment nous versé d'ailleurs la commune alors nous avons un projet nous bëgg depuis Nous situation irrégulière Nous l'illégalité mais nous l'État a ses services spécialisés chaque jour nous maîtriser ce domaine surveiller donc euh, euh, les terrains et tout cela. Mais ça n'a pas été le cas. Nous sommes dix ans après site une vraie cité. Il y a de belles constructions, mais il commence à avoir une population importante. Alors, comme nous avons un projet, nous avons un mais d'une manière vraiment trop C'est nous immeuble ñu ñëw bëgg leen moo tax ma ni kooku du fi amee tey du fi amee ëllëg